parce que euh, économie bi fi mu toll nii dafa xaw a taxaw dellu ginnaaw euh, bon ñoom seen bopp nangu nañ ni affaire bi tàmbaleegul mais génnee nañ quand document bi nga xam ni seen stratégie nationale de euh, de développement bi nga xam ni fii léegi 2050 moom lañ nar a yoree Sénégal. Tunkara Macky Sall ba muy dem yooyu sax yow yaa ma koy gën a xam <laughs> yow xam nga li Macky Sall bàyyi fi. waaw tous les voyants étaient au vert moom dëgg la. mais dañuy séddoo xam nga ñuy bandi bandilu xiif di bandi bandiloo ñoom pour ñoom état boo ci toogee eh kaay leen wax leen ñoo fi neen nañ leen def na mais yow fii Sénégal la dañuy coow sama benn cinq milliards yu ma banque Santander bi joxolal après mu jeex xaalis bi mi ngeeg ñoom ñuy fowe seetlu nga leen ni ñamee yaram seetlu li ma lay wax waaw mais opposition ak pouvoir du benn tamit. mais nag lii laa lay wax mooy topp mooy nii Macky sàll yi mu fi bàyyi yëpp doxaluñ ci leen Sonko génnaat di fen réew mi dafa dem down Macky sàll bàyyi fi dara ma ne ko néga maa nga sama kër de di togg naan ko néga yu lying danga waxoo benn dëgg ana xaalis boobu duñ ko génnee tegal ko dëkk bi taximaan yaa ngi jooy. sénégalais yaa ngi jooy ñi ci bureau yi ñi ngi jooy ñi ci mbedd yi di jaay ñi ngi jooy tunkara ba ma ñëwee léegi tunkara ay rapport ba sama kër damay joxe ay rapport dañ ma wër ah, kura ay waay bàyyi fi ñu dépensons dara amul am ku ma ne xoolal enveloppe bi ubbi ko yu mag yi ma xool ko mu ne ma sama oto laa jaay entrepreneur la doon tabaxal ñu may fay lépp la Sonko arrêté Coura ne ma dinaa ko xeex yu dem waxal ma ko dinaa ko xeex ci zaahir rek baatin ne ma xale yaa ngi kenn fayekul sama oto laa jaay pour jox sama xale yi ñu am lu nu yor dëkk bi dem na ba toll foofu waaw dëkk bi temps yi moom euh, doxul mais yow amu benn yaakaar si ñu doxal ko ah munuñu xamuñu fen la ñuy def Sonko mi premier ministre moom xanaa jàngul ci Amadou Ba bam fi toogee doo ko gis lu bari man daawuma gis Amadou Ba Amadou Ba da daan liggéey Sonko booy xëccoo di wax lu ñaaw di gatsa gatsa mais ba jërum réew ñu jox la réew mi ci gatsa gatsa xanaa nag boo toogee war nga ni ah man war naa yërëm sénégalais ñu noppal ko naa arrêté. non nawet bi tamit metti woon na mais ministre bi yor euh, wàllu ndox bi nee du seen nawet. mais ñoom dama ni ay bàyyi po Sonko amul ku baax amuñu xam-xam Macky Sall dama taxaw ensemble ne du fal dof ku xamul dara yow xam nga intelligent Macky Sall du fal ku xamul dara ku amul caméra bi amoo ci xam-xam Macky Sall bëgg lu la neex jox la ko yow yaa ma gën a jàng xam nga ko Tunkara mais Sonko nee na ñi doon xeex projet yi ñi ñàkk xam-xam mais yow ñi bëggul Sénégal mais est-ce que duñu wax Sonko dëgg nag ñi mu àndal ay Atepa Goudiaby ñooñu dóorkat yu métti yooyu du wax Sonko dëgg nag ni ko dalal dóor ko ci bopp ne ko dalal ah ñooñ tamit ñooy ay parrain wam ñooy ñu ko gunge ñu ko jàppale Atepa Goudiaby moo jiitu Sonko nag ci réew mi nag xam na réew mi nag waroon na ko ni kaay nag maa la maa la financé man maa la joxoon sama seize ok léegi lenn lañuy def nigga you need to chill down chill down na bëtul tuuti ñu ñu bàyyi réew mi meloo ñu doxal ubbi ay usine ñoo dig xale yi ne dañuy liggéey de àll ba yaatu na de léegi nag li ñuy créé mooy ubbi usine di def ay usine comme li loolu yu sundur ubbi woon yu genre yooyu ci jam ñaajo bi imprimerie yi mais di fen di ñu fen di ñu fen ba jomaay mer ba jomaay nangu na léegi ne moo ñu jabote ñun ñëpp ku ko voté ku ko voté lul ma naan ko nii xolal nigga yaa ngi góor si de waaw waaw now I'ma call you my nigga na wax Ousmane dëgg eh bàyyil wax ci nag doy na man dama bëgg a liggéey faluñu la man jomay Fay may nekk ci histoire Sénégal Ousmane bàyyi ma ma liggéey yow tamit parce que nii buñ ko continuer duñu am bilan de. oh dara du xew cinq ans dafa gaaw de Tunkara five ñu bari dañ naan woy fu ñuy dund ba five mais five years dafa gaaw. boo xoolee ren jii 2024 moom année blanche la quoi mooy defu ñu amul ay investissement créé ñu emploi créé ñu richesse euh, te année blanche moom réew mu ñàkk waru ko dund ndax euh, saa yoo ko defee rek dina am ñoo xam dinañ gën a ñàkk ñu am ñoo xam ne dinañ dugg si kàmb goo xam duñ fa mës a génn. ku yebu daw ci dëkk tubaab yi. ah waaw waaw bu nu jaar ci gaal gi. anybody call me képp ku ma woo. bu fekkee Amérique nga bëgg a dem man de dinaa la wax nan ngay def dem fii ci ambassade bi jaar ci yoon bu normal kayit yi nga war a wone lépp mais nga jaar ci voie santuma kenn